ne dangay ngay boo paree gis boo paree dag di yëg ci sa xol par étape la bi mu ko roofee roox nag mu ne bëreet toog lim njëkk a def mooy tisli yàlla ne ko sant ma ndax yàgg nga fi te yëngoo mu ne alhamdulillahi rabbil alamin mu ne malaaka yi delloo leen ko cant malaaka yi ne ko yarhamukallah mooy yal na la yàlla yërëm mu di yàlla ne delloowaat ko mu ne yaxfirullahu lana wa lakum yàlla nañu yàlla boole jéggal kon mbokk yi foofu duma ci yàgg waaye beneen bi ci topp moo di gannaaw nag environment bi la yàlla booleel muy ay wayjur ka ca jiitu yàlla ne bi ma dogalee nga jaamu ma te bu ma booleeg dara sa ñaari wayjur jur nga leen toppatoo bu buñ xam sa tële buñ xam sa ñàkk mën bu ñu xam sa naqari deret bu ñu xam bu ñu xam bu ñu ne ko nooy def mu ne nooyal ci seen kanam wàcceel sa kàddu ci seen kanam suufeelal say bëti oom ci seen kanam bul yëqamtalu ci seen kanam bul wax sa kàddu gën a féete ko seen bos te bu leen gëdd te boo xëyee nga ñaanal leen yàlla lii da da yàlla santaane ci ay way jur ñu ne ko lu tax mu ne tollu woon nga ca ñuy ñaan yàlla pour nga yàgg fi mujj leen fi yow bi nga fi tolloo ñoom ñu ngi ñaan yàlla pour dem yow nga des boobu mooy ñaareelu étape bi ñetteelu étape bi nag mooy bi gën a lëjël ñépp mooy suñu diggante boobu benn aaya la ko yàlla tënk walla benn saar moo di saar wi yàlla di wax ni araayta alladi yukadibu bi diin fa zalika alladi yaduxul yatim wala yaxuddu ala taami lmiskin fa waylun lilmussalina alladina hum an salaatihim saahuun alladina hum yuraauun wa yamnauna almaauun foofu laay jeexale xam nga lu tax lii imaam wax léegi bari na kuy julli di woor dem makka azaka saraxe yàlla nangu yépp waaye fekk mu ngi lor ay dëkkaaleem lu mu jaamu yàlla ñu jël ko séddale leen mu jigi maara deytaale safara mooy doon këram aleyka salaam li imaam wax rek loolu la yàlla loolu la yonent bi wax de yonent bi dafa am benn jigéen bu génn àddina ak benn góor mu ne ñoom ñaar ñépp nga safara ñu ne ko lu tax mu ne kii jigéen la waaye li muy baax baax daf daan lor ay dëkkaaleem ñu ne ko ki ci des mu ne kii góor la jàkk jël la dëkki jaamu yàlla la dëkke waaye dafa am muus mu nekkoon ci biir këram mu yeew ko joxu ko mu lekk bàyyiwu ko mu dem ba muus mi dee laaj bi ci jiitu mooy su amee xew bu neex demal ne ko le wala nga woo ko téléphone ndokkale yonent bi nee na bokk na ca bu sañsee génn ne ko sañse bi rafet na xam nga ñun mag ñi amoon nañ ko da ngay sañ sa génn ñu ne ah lalal naa la wala déet nga sànni ca dara ne lalli naa xam nga lu tax cat du la topp léegi nag ngeen baal maa xam mbaa doolo tax na koo ci ne lalal naa la mu ne seetlu leen ko rek koo ci ne lalal naa la du la jéem a jox dara te waxtu woo sañsee yaa njëkk a catu sa bopp yaa njëkk ñi ko ñëpp di defee rek jërëjëf Ngouda ak euh, Rawdu hmm. kon ñu gaawal suñu loxo jeex na ba noppi waaye buñ jeexalee ñu may ñu rek Haj Malick konku ñu ñu jox nag monsieur Lo bu force convergence locale tabarakallahu moom it am na ci kàddu tabaarakallaahu ndax ñun ñëpp ñoo bokk temporel la ak spirituel ñoo bokk penc mi ah te moom it autorité la ci barab bi incha allah mu may ñu ko rek moom sax dañ ko waroon a njëkk a jox balaa ñoo wax kon ngeen baal ñu ñu terminé fu ñu yemoon ma xool ndax ñu ngi déglu ci borom lu bulal yi moom mu ngi siiwal waaw moo tax professeur la moo tax gis ngeen yàlla ne say ñaari way jur bu ñu xam sa naqari deret bu xam sa tàng boo amee di boo amee ay grade bu ñu ko xam nekkal imam nekkalub shérif santal kunta santal Mbàkke santal si santal Aydara nekkal président de la république nekkal ministre nekkal maire nekkal loo mën a nekk yàlla ne sa ndey ak sa baay buñ ko xam ñu ne ko nooy def mu ne sukkal ci suuf wax fit lahuma janaaxa zulli min arrahma nga toroxlu ci seen kanam soo amul loo leen jox ndax crise bu métti yàlla ne nga wéet ñaanal leen mooy rabbi ixfir lahuma kama rabbayaani saxiran yàlla yàlla na nga ma yërëmal bokk samay ñaari waajur muy ndey ak baay awma lu ma leen jox waaye yërëmal ma leen niñ ma yërëmee woon ba ma nekkee gone tey jii ñun ñii fi toog ba ñuy gone ku ci sa yaay étouffé woon dee rek nga dee balaañ koo xam dana yàgg wala déet mu bënni botam di jooy naan dee na fekk moo ko rey ku koy xam ko dul yàlla méthode bi ndey mën a def pour rey doomam te kenn du ko xam bari na waaye ndey dong mooy ñaan ak baay yal na sama doom mujj ma ci kaw suuf yal na sama doom ëpp ma barke yal na sama doom ëpp ma alal yal maa gën a rëy daraja ca yàlla loolu ndey ak baay doo nga koy ñaanal doomam gis nga sëriñ si li ñuy baax baax baax baax duñ ne taalibe bi yàlla ma ëpp cër ca yàlla mukk duñ ne yàlla na ma fi mujj kay nañ dem ma topp ci rek yal naa jullee ñëpp loolu lañuy wax ah déet nañ waxante dëgg kon ndey ak baay kenn mënu ko wecc te noo mën a mel seetlu leen ko rek bàyyi sax mën naa am problème bañ doomam ba du ko jege waaye ndey lu doomam taq taq takk bëgg na ba ma koy waxtaan ca Thiès Hadj Malick a ngi toog genn góor gu toogoon ci sama wet ne ma doom xam nga lu tax ndey gën a sonn ci doom ma ne ko déedéet mu ne saabu weñ lay fóotalee doomam du jeex mukk moo tax nu doomam mel bëgg na fàttewu ko de mu ne saabu weñ la ndey di fóotalee doomam moo tax nu doomam mel mu accepté ko bu ràmmee mu sang bu wagaa mu sang bu bu bu yoree choléra mu sang nu mën a mel mu sang taf ci ko waaye léeg-léeg mu toll foo xam ne bàyyi da koy jalax waaye toppatool sa doom jiwaay xanaa moo bokk ci wala de naxal sa doom jiwaay xanaa moo mbokk ci moo tax nga xam ne c'est très important li yonent bi waxoon ni benn waaye dafa mu ñëw ci moom ne ko léegi nag am naa alal sama ndey ak sama bàyyi ku may defal mu ne ko sa ndey mu ne ko après mu ne ko sa ndey mu ne ko après mu ne ko sa ndey ba muy ñetti yoon mu door koo wax sa baay tey boo ko defoon ci Sénégal coow topp la bàyyee njëkk a walla wala xoolal benn système it doom lu mu bon bon bon bon ndeyam rek a koy féetewoo boo waxee mu ne bàyyam xam nga lu may liggéeyu ndeyam la xamoon naa ne nii lay mel waaye gis nga bu baaxee xam nga nu muy njëkk a def penc moom toog yor journal dañuy am lonet nag mi yóbbu c'est mon fils c'est di ko tiitaroo maa la ko wax waaye bu bonee du nagoo nekk fii sa mukk ndeyam rek lañ koy jalax su baaxee nga dégg mu ne c'est fii fille fii waaye bu melee neneen rek ñu jalax ko ndeyam moo tax El Hadj Ousmane Guèye bàyyi imam Moussa Guèye moo daan wax ne jigéen na def très attention mu ne loo xam ne bu baaxee ñëpp bokk ko su bonee ñu puus ko kenn mu ne kañ koy puus war na xam boppam te koo koy jigéen mu ne na xam boppam kon bi ci des moo di bi ma wax léegi moo lëjal ñépp yonent bi nee na sa dëkkaale ci ñii ma wax ñeent fukki kër penku sow ndeyjoor càmmoñ mu ne soo toggee làq bi nga leen njëkk a yoreel soo toggee xet gi rëcc xeeñ leen mu ne soo leen mënta may ci yàpp wa nang leen may ci ñeex ma ndax àq gis ngeen ngeen baal ma am na lu ñuy wax dëmm yabaate rek la waaye amul borom beñe borom beñe borom beñe bayil bayil borom beñe dimbali ñu rek dimbali ñu rek dimbali ñu rek nga xaar tuuti rek baal ñu tuuti rek balaa séeréer ya ñibbi alaaji Malick bind na ko Seydul Haaji Malick bind na ko ci téeréem bu ñuy wax jawaab suwaal wa jawaab alaaji Ahmad Dem bu sookoon moo ko ko laajoon cinquante cinq question moo ca nekk daf ca bokk dëmm ndax am na alaaji Malick ne ko amul xam nga lu tax est-ce que dégg ngeen fi ku am xaalis ñu ne dëmm na dama leen di laaj am na ngeen baal ma président de la république buñ ne dëmm la am na ministre buñ ne dëmm la am na imam buñ ne dëmm la am na député buñ ne dëmm la am na ki gën a néew doole ci koñ bi amul dépense baraak yu bon la dëkkee mbubb yu xotti ku lay sol moom la ñuy xool ne dëmm na moo yeey yéen a yor lu neex te mosalu leen ko ci di lekk xelam rek ku lekk dee moo moo moo yeey moo yeey bu rafet dafa nekk ci koñ bi dëkkul fu dul baraak amul courant yéen a ngi seetaan tele du ko seetaan yéen a ngi lekk ceebu jën du ko mos yàpp tabaski ba tabaski la koy am mbubb yu rafet sax amu ko ay sagar lay sol di yelwaan boo toggee mu xeeñ ko du ca mos boo lekkee sa biir métti ñetti fan nga dee ñu ne dëmm la moo yee boo ko ca mosaloon du ko dal li yonent bi wax nga ku ñu yàpp rek ngay dégg ñu ne dëmm la dëgg wala du dëgg ku néew doole rek ngay dégg ñu ne dëmm la moo tax yonent bi sallallahu ne na bokk na ci àqi dëkkaale soo toggee mu xeeñ leen boo leen mënta may ca yàpp wa nga may leen ca ñeex ma mu ne soo amee dëkkaale war a yëkkati étage na dem ba ci moom nga tàggu ko ki nga ñaar ñi nga sësal ka ne leen dama yëg bëgg a yëkkati étage loo ci xam bu la joxee ndigal nga yëkkati mu ne bu la joxul ndigal nga bàyyi ñu ne ko lu tax mu ne bés penc dina la laaj ca kanamu yàlla ngelaw li waroon na ñëw këram te sa étage baare ko aha yéen ñëpp a ngi nii xam ngeen li may wax beneen bi ci di gën a teg mooy da ngay tabax jël suuf si jal ci kaw mbedd mi xamoo fu urgence amee wala déet wala nga ñëw gas ci digg tali bi jël waa siti jën def ci silmaxa boo xam ne ay bëtam amu ko ñëw tàbbi ci biir pax mi mag moo xam ne doo xam neexul tàbbi ci biir pax mi boo waxee nga ne mbeddum buur la yow yaa fal buur yaay buur yëgoo ne yow du nekk buur te ëllëg mën nga ko remplacer gis nga li yàlla dox ci àqi dëkkaale suñ ko respecté woon benn police du am candidat bu fa dugg police du recevoir kenn àqi dëkkaale li ci yàlla wax suñ ko respecté woon convocation police du am police du liggéey nii tribunal président de la république day jaaxaan xelam dal mais ñàkk a respecté li ñu yàlla sant ci suñu diggante moo indi kenn amul jàmm day indi insécurité day tax kenn du am jàmm kenn du woolu kenn imaam a ngi nii du ma bàyyi ma fekk léegi ci jàkka ji lu ma ñu ko wax shérif ana say daal na dem ba fa nga waroon a am sécurité muy jàkka ji waroon nga booy dugg mën a bàyyi say daal ci biti waaye léegi kunta kunta yi sàkkal ko pexe bi ñuy dugg rek loolu la imaam ñi ko wax am na waa joo xam ne dàll yu rafet rek lay jël kon ana sécurité ma daaneele foofu ngeen baal ma am na ci yoo xam ne du jikko nag ñii ban tey xam nañ li may wax ñi may àndal dafa benn xale bu jigéen boo xam ne maa ko jàppal sama bopp ci xadara ba mat na six ans léegi ku ñëwoon xadara si rek imaam dàll yu rafet yu fa ne kenn du xam lu koy jël ma woo ñaari xale ku ñuy wax Atumaan Njool ak ku ñuy Mbay Jum kii ma ne ko taxawal ma ci buntu kër gi tëjal bunt bi mais bàyyi tuuti nga écarté wu man dinaa toog ci salle bi tëj salle bi dinaa fexe bi am porox ndoll bu ma xoolee aatumaat ma ne ko yow yéegal ci kaw buy gars yi di julli rek del cat bëtal donte sa julli sax dana taq suuf parce que foog ñu régler problème bi bi ma ubbee bunti salle bi ndànk ma gis xale bu jigéen bi di for dàll yi di tànn yu rafet yi def ko ci mbuus mbuusu cinquante franc yu bëlëy yi yu def ko ci yeew dugal ko ci kaa escalier bi ndekk ci sama kër la koy nëbb boole ci loolu kenn mënu ko xalaat dugal ko ci kaa escalier bi buy ñibbi na gàddu mbuusam mel ni rek xam nga danga naan moo ko fi indi te mu ngi sañse ba jekk loo ñeme nga ko wax sa mbuus mi lu ci nekk te dafa xadara si comme tout le ma bàyyi la muy génn ma ne ko diw kaay ma gis la foofu lox na fa lox yoo xam mu dugg ci salle bi ma ne karek karek ne ko tekkil mbuus bi mu tekki ma ne ko dalli jàmbur yëpp ndekete yaa ko daan jël lu tax mu ne papa Chérif dofuma dara daluma damaa ami problème jëkkër laa bëgg billahi wal moo ma tax di def yii mu ne ma parce que sama papa dafa jàpp ne dama dof sama yaay jàpp ne damaa dof te dara daluma ma ne ko jëkkër nga bëgg mu ne waaw ma ne ko di ko am àjjuma bii di ñëw wallahi ah, ma téléphoné damay bañ a tudd turam kenn ci ñi ma waxoon ñooñu léegi ne ko sa benn petit frère doon na ma ñaan jabar mu ne ma ne ko bu àjjuma ma may ko jabar ma woo mbokki ndaw si wax leen ko ñu ne ma kooku boo ko mayee ñu jël day dox rek te sa kër la ko yàlla xiir xam nga xamuñ sax lu xew ma mayee ko safe fait cinq ans ñëwatul xadara téléphone laa koy dégg ma ne ko diw yow gisatuma la mu ne damay sëy sëy bi wallahi ça cinq ans mu ñu ngi dugg ren sixième année ñëwatul xadara jaaru fa sax léeg-léeg rek mu woo ma téléphone ma ne ko ah yow diw géej naa laa gis di mu ne damay sëy sëy bi de. am ay doom boole ba am ay doom boole ci. nga xam ne kooku tey buñ ko négligé woon pop pop euh, euh, euh, Sénégal ñàkk ko dañ naan dof la te fekk dara dalu ko dañ ko encadré wul. dañ ko encadré wul parce que bari na ko def jéyee nga foog ne jéyee jim def moo ko tey am na lu nekk ci gannaaw jéyee ji nañ lijjanti loolu. suñ ko lijjantee rek jàmm am gis nga yii dama koy wax pour ñu yëg ne réew mi mën nañu ko defar ñu ni neen sans police sans gendarmerie sans dara mën nañu defar réew mi ñooñu nag nekk fi rek pour sécurité mais ñun ñu régleel ko suñ bopp mooy kenn ku ne yëgal ne lii defar yow la kiy defar yow la li ñuy defar yow la boo ko defee rek lépp jag bu lépp jagee ñépp noppal moo tax yonent bi sa alayhi wasallam wax nag ni booy yëkkati étage tàggul ñi nga dendal mooy ki ci sa ndeyjoor ak ki ci sa càmmoñ wala ku la féetee ginnaaw ne ko damay yëkkati est-ce may nga ma ma yëkkati bu la mayee nga yëkkati su la mayut nga bàyyi ndax bés pénc dana la poñe ci kanami yàlla ngelaw li waroon a traversé ñëw ci sa kër nga baare ko leer na hmm. kon nañu góor góorgóorlu ci dëkkin yi ku ci am dëkkaale ormaal ko suturaal ko yonent bi nee na bu leen di yër seen awraay morom waxul awra yii de ñuy nëbb di ko muur waxut yooyu de mooy sa dëkkaale lu mu bëggul nga xam ko ci këram bu ko gëstu salaamaaleykum loo togg añ lu ciy sa yoon pour weer ko rek lu ciy sa yoon lu lu ciy sa midi deux heures trois heures yaa ngi ci kër jàmbur yi pour xam lu mu togg añ ba boo liggéey boo koy xas nga mën ko ko xasee yooyu ci awra la bokk yonent bi ne bu leen di gistu wante seeni awra dëkkandoor mooy lu mu bëggul nga xam ko bu ko xam soo ko xamee it suturaal ko noppi waaye bari na kuy dem kër diw yaa ngay xool nu saalam mel lu fa nekk lu mu am lu mu amul foo toog toogee ko ba bi ngeen di gën a xeeb mu sol lam am sañ si génn puudaroo nam ne génn nga xanaa bàyyiwul mbokk këram waaw ah, moom de bàyyiwuli mbokk gi kañ la xew wi te saydatuna Fatima dal na ko digganteem ak rasulullahi saydatuna Fatima dafa am ko sañse mël fa mën fa bu rafet génn sayyidatuna Fatima ne ak a neexoon am njool sol ko yonent bi dóor ci loos bi fii benn lumb deret génn Fatima ne ko yaa rasulallah lii lan la mu ne ko lumb woowu boo ko wanaasu woon mu lu may lay jur juru munuma laa musal ci safara ëllëg mu ne ko ndax jëw bi nga jëw nit ki mooy lumb deret woowu mu ne ko papa man jëwuma ko di dama ne mël fëm bi rafet na waaye bu ko njool soloon mu ne ko kii di ndaama nga ne bu ko njool soloon loolooy jëw bi danga ko xem ndax ndaama ndaamaa bind boppam wala yàllaa ko bind mu ne ko yàllaa ko bind mu ne ko kon ay ayibaloo ko yàlla ngay ayibal déedéet déedéet may ma may may rawdu yoo xamante ne dégg nga kon yooyu nañ ci bàyyi xel li ma waxoon léegi tamit ku sañse ba noppi yaay njëkk a catu sa bopp xam nga lu tax kenn ñaawul ku jàkkaarloog sa seetu rek rafet moom kañ da ngay génn ñu ne diw kañ da moom li yàlla xam doy na astu konte la rek waaye ku sañ si ba yow ba pare xam nga looy njëkk a wax ah, man nag ba dee sa boo ko waxul sa làmmiñ sa xel wax na ko nga génn nit ñi xool la ne ah bi rafet na mag ñi moo tax ñu daan la wax ne lalal naa la nga sànni ci dara ne laal li naa ca teggi la waaye léegi dañ naan lalal naa da ngay <laughs> jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup ko waaw ah, merci beaucoup faju ko nit day xam teraanga nit day xam teraanga teraanga dafa baax te day day tax nga yàgg fi waaw su ko defee kon suñ borom nee na foofu lay joxe xaaju Malick xaaju Malick nga jël kàddu gi amiin ku fi nekk rek sa xol sedd na. waaw. waaye booba tey yaa waaw may ma may ma waaw may ma man loolu dama koy bañ. man maa ko def ngir yonent bi. waaw waaw waaw yow may ma ko rek. ñun bu nu mësaan jàng rek dañuy dem. waaw waaye man ci télé bi laa la daan gis. ak ci internet bi dëgg la waaye li ma toogloo ba waxtu wi damaa war a jàngi ba mbuur yàlla xam na. wallaay dëgg la dëgg la waaye li ma toogloo fii. Hmm. mooy macha allah. Hmm. bégloo gi ngay bégloo nit ñi. damaa bëgg nit ñi jug teral la ngir yonent bi waaw kon léegi waaw waaw léegi làmb ko ci seen biir mais làmb ko ci seen biir rek ndax dañuy Sidi Kunta laay bañ mu yàgg fi làmb ko ci seen biir te indil ma ko dégg nga waaw léegi làmb ko ndànk te indil ma ko ndànk dinaa xam ni may def dégg ngeen ngeen baal ma rek wax dafa am fu muy toll foo xam ne rek xam nga lu tax ma wax ko mbay mbay la de sant bi waaw kañ xam nga lu tax ma ni ko wax wallaay du fii rek boo demee nga laaj sa sëriñ Cerno Abdourahmane Bari boo demee nga laaj ko xam nga kuy fen ba taalibe borom toog doo fenati wala déet soo demee nga laaj ko Cerno Abdourahmane Bari dama koy defal conférence ca Paris comme nii nga def am ku jóg ne waay waay indi leen bu doon bu doon suñ mbokki murid yi taabal ji fees na gars yi commencé di indi euro yi di indi ma ne pat waxatuma ba taabal ji bari ma ne Thierno Bari yàq nañ sama waxtaan balaa may continuer waxtaan wi waaw déglu rek maa ngi ñëw may ma rek Ndiaye délégué ma ne leen balaa maa waxati benn baat kenn ku ne li nga fi tegoon xam nga ko kaay jël ko ma door a continuer sama waxtaan ñoom ñépp kenn ku nekk ñëw jël la nga fa tegoon ba mu jeex ma continuer sama waxtaan ma ne leen xam ngeen lu tax euro indiwuma fi bu doon xaalis ma toog ndakaaru sama yelwaan ndakaaru la gën a duune yàlla ma fi indi nañ toog lu man ak yéen su noppee ñu jëfee ko système boobu parce que xaalis dafa neex xam nga lu tax su yàggee ñëw rek nga yàgg koo tàmm xam nga fooy mujj ah ajaaru gi yetu gisaguma la de xeetu yelwaan la maa la ko wax ah madame la ministre ah délégation bi jekk na waaye gisaguma leen de xeetu yelwaat ngay def dootoo waxal yàlla dootoo waxal yàlla te kuy waxal yàlla muñal li ci poche nit ñi te féeteeg yàlla yàlla dina la régleel sa problème fu kenn nekkul wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib man boobu laa gëm joxe nag baax na waaye ci bii moom d'accord ma man man nag am naa ci droit waaye keneen am na droit ci leneen kon su ko defee bi may mujjee daal mooy nañ ko xoolaat yàlla ne te xool leen li may wax arayta yi ñu bari mokkal nañ ko ci tant mi loolu rek lay firi arayta lazi yukazibu bi diin fa dalika allazi yadu al yatim yàlla ne am na koo xam ne ndabal teraanga bu jëmee kër imaam mu ne ko bu mu dem imaam matu ko am na ko bu yàgg lu ciy sa mu ne am na ñoo xam ne kuy teral nit daf leen di déranger alaaji masilla kat mooy xam mooy wax ne xam naa nay waaye naye naye nay ba ku lay jox nga naan déet ëpp naa def mu ne kooku ci xeetu mbon la bokk te yàlla foofu la waxee nee am na ñoo xam ne ndabal teraanga bëgguñu mu jëm kër kenn teraanga nag dafa rëy bari na te yaatu ndombol tànk ilimaan ju ñu war a fal délégué de quartier bu ñu war a fal keneen ku ñu war a fal convergence bu ñu war a fal député bu ñu war a fal comme sa nawle la yaa ngay dox di wax lu tax duñ ko duñ ko fal wala déet ba ci ministre bi buñ ko waree fal am na ñuy dox di dem ci président naan ko matu ko diwa ko ëppale ca koñ ba diwa nangam diwa nangam ba yàqal ko ko yàlla nee na am na ñoo xam ne teraanga def leen di déranger mu ne bu leen ci bokk ba ca topp te bi mujj mooy yonent bi salaay sallam déglu leen bu baax dafa am ku ñëw ci moom ne ko si naa Seydina Abubakar moo romb tàndarma juñ doon jaay tàndarma yaa ngi rafet dijj si naa Seydina Abubakar jënd ko ne kii sama waa ji doo nga ko yeeyoo muy sallallahu alayhi wa ñëw fekk fi yonent bi toog mu ne ko yow ki yàlla yónni am sa àddiya ndax yonent bi du lekk sarax mu ne ko am sa àddiya kooka nag mën naa wat ne moo jur ñii waa njaasaan yi ki may wax moo leen jur du caaxaan nag xam nga nu saxaaba boobu def mu raam ñëw ci yonent bi ne ko tàndarma jii laay yelwaan mooy maamu si di maxtaar konte <laughs> yonent bi ne ko tey nga am soxla de yonent ci bi ne ko waaye jëlal tàndarma ji yëpp yàlla jox la Sina Abubakar xool-xool affaire bi métti ko waa ji gi saxaaba bi génn di dem Sina bu dama leen di tooñ rek ndax ñooy samay kal ku xamul ku ne nag Sina Abubakar toppaat saxaaba bi ba mu wiire mu wiire ne ko saawaay jaay ma tàndarma ji mu ne ko ñaata mu ne ko juróom-ñaari dërëm Seydina Abubakar wàññi juróom-ñaari dërëm jox ko indiwaat tàndarma ji fekk fi yonent bi toog mu ne ko yaa rasulallah am sa àddiya saxaaba bi wàññeekuwaat ah, gis ngeen xam nga yi a ngi rey te dara xewul ñëwaat ne yonent bi tàndarma jii laay yelwaan yonent bi ne ko jëlal yàlla jox la génnati bu bëkka dab ko ne ko jaayaat ma tàndarma ji xam nga mooy deuxième fois mu jaay ko tàndarma ji juróom-ñaari dërëm encore léegi moom am na fukki dërëm ak ñeent quatorze dirham mu ñëw ci yonent bi joxaat ko tàndarma ji ne ko sa hàddiya saxaaba bi wiire jiwaat ñëw ne yonent bi tàndarma ji laay yelwaan yonent bi ne ko yow nag dangay ngay yelwaan da ngay tàppaas yow nag dangay ngay yelwaan wala dangay tappaas jibril ne cëpp ci kanamam ne ko sa borom nee na bu mu amati yow rasulullahi nii nga wax ak moom ëpp na wa ama saa ila fala tanhar kuy ñëwati yow ci laaj di la laaj bu ko gëdd yow yaa war a gid ni ñépp yaa war a jubal ñépp bu kën dëngee ci yow te kii li nga ko wax blessé na ko ndax xolam metti na wa ama saa ila ku ñëwati ci yow di laaj fala tanhar bu ko gëddati jox ko wala nga ne ko sikki ma lakkandoo waaye ni nga wax moom diis na cest te ñun ñëpp jàpp nañ ne saxaaba bee tooñ waaye ki war a gindi jaam ak ki war a jubal borom kër ak ki nga dëkkal soo ko bëggee dimbale xam nga noo koy dimbale gën koo jub rek su indee ay nga indi jàmm su rafetal su ñaawale nga rafetal idfa bi lati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyun xamim wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu xazin adim ngeen baal ma foofu laa koy jeexalee waaye ci ñaar exemple laa leen di indil benn bi di ngeen ma ko may alaaji abdul aziz la dal bi ci des seydina omar may ngeen ma ko ma njëkkee bu seydina omar bi dafa am benn dëkkaaleem boo xam ne suñ mosaan sëlmal fajar rek asalaamualeykum rek mu ne bëreet dem ñibbi saxaaba yépp di ko xool kenn ñemewu ko ko wax Seydina Omar dem fekk ko këram gannaaw ñetti fan yu teglante yu mu ko def Seydina dem fekk ko këram ne ko diw mu ne mu ne ko ñëpp lay jëw waaye maa la koy yeggee mu ne ko lu xew mu ne ko yow ban jaamu yàlla ngay def bu ëpp yonent bi toog di wax nga di ko déglu te saa bu bi sëlmale nga ne bërët ñibbi kenn du xam looy def ak loo mën a def toog déglu yonent bi ko ëpp tiyaabo mu ne ko Omar balaa ngaa dal ci sama kaw danga may laaj mu ne ko ah waaw wax nga dëgg baal maaq kon lu tax nga di ko def mu ne ko dara taxul lu dul dama dëkk ak benn yawut ñoo jëlloo kër tàndarma sax ci biir këram am branche boo xam ne dafa yooru ci sama biir kër te tàndarma ji dafa ñor période bi tàndarma ji dafa ñor picc yi waxtu fajar lañ koy rotal damay bañ toog ca jàkka ja picc yi rotal ko sama waa kër yeewu for ko lekk ko te dagganul ci ñoom seetal nit ki bu la expliqué wut munoo ko munoo ko comprendre mu ne ko en ah, loolu rek la mu ne ko wallahi yaa Omar loolu la damay bañ ñu lekk tàndarma ji te daganul ci ñoom mu ne ko nooy def mu ne ko damay toog yi yëpp ma ko jëlaat ko yawut bi Seydina Omar génn dem kër yawut ne yawut bi dama yawut bi ne ko suba kallaw loo ma xëyee yéen jullit ñi nii ngeen mel rek bu ngeen xëyee di dox rek yeewoo guma sax nga ne ma fëgg loo may doyee mu ne ko defal ndànk rek yow it sama julli sama mbokk jullit bii nga jël loolu kër da koy lor mu ne ko nu ma koy loree mu ne ko sa tàndarma branche dafa nekk biir këram te suñu yonent bi li muy wax mun toog déglu ko ndax yow picc yi li ñuy rotal mu di la ko jël ndax day bañ waa këram lekk lu daganut mu ne ko wax nga dëgg de saa yu ne ma gis luñ buub jël ma ko ndekete moom la mu ne ko waaw si naaw ma ne ko tey laa ko bëgg a saafara mu ne ko ci naka mu ne ko dama bëgg nga jaay ma sa benn tàndarma bii ma jox la sama toolu tàndarma bi ci bunt dëkk bi yawut bi ne waaw boo demee seen yónnant baa waxati lu leen jommal rek yaram wi tàng waaye lii moom mënta nekk teyeef ne ko waaye may ma ma diisoog samay mbokk mu fëgg mbokkam yi ne leen Omar di ñëw na xam naa seen yónnant baa wax lu leen jommalati waaye li mu wax de yenuwul maanaa nee na naa ko jaay sama taatu tàndarma bii mu jox ma tollu tàndarmaam bële ca bunti dëkk ba te ñëpp xam nañ ne moo ko moom ñu ne ko gaawal signal seen yonent baa wax lu tàngal yaram bi buy sedd mu bàyyi ko mu ñëw rek ne ko ca d'accord naa Seydina Omar moom këyit ne ko bés ni tey maa moom sa taatu tàndarma bii bés ni tey sama tollu tàndarma bi yaa ko moom waaye may naa la lu rot sa kër jëlal boole ci waaye lu rot sa kër dëkkandoo dëkkaale bi bàyyee ko ko seetal ci tollu tàndarma mu dem bay dem yàlla sol leer ci xolu yawut bi yawut bi topp ko ndax conscience am tranquille waaye boobu yàlla nam mën a dara yawut bi topp ko Seydina Omar duggaatul sax kër dëkkaaleem bi dafa jubali ci jàkka ji yawut bi fekk ko ci jàkka ji mu toog mun mu toog ñu ne ko yow bokkoo ci ñun de mu ne damay déglu dal di ne yaa yow kii yow mii Muhammad yow laay wax mu ne mu ne ko kii lu doon ci yow mu ne ko ku ma gëm la mu ne ko dëkkaaleem bi lum doon ci moom mu ne ko mbokki jullitam la mu ne ko mbokk jullitam rek tax mu jël tollu tàndarmaam signé man pour benn tàndarma bu nekk fii te moom branche yi euh, wadd ci kër tàmm dëkkandooram bi rek la bëgg mu ne ko ah ñun noonu la ñuy doxalee xam nga lu tax laa yuuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi ma kenn ci yéen du mat yonent bee ko wax lu dul lim bëggal boppam la bëggal jaami yàlla mu ne ko ah kon bokkuñ dara mu ne ko déedéet mu ne ko wallahi ashhadu an laa ilaha illa allahu wa ashhadu annaka rasulullahi gëm naa ne yàlla buur la te yow yàllaa la yónni ndax éducation bii nga def ci ñoom ba kenn ku nekk yéene boppam li mu yéene moromam mu yéene ko boppam Omar doo ma gën a gore sa këyit a ngoog jëlal sa tàndarma sama tàndarma bi sax sama kër doy na ma waaye bés ni tey lu waddati kër sa dëkkaale bi moo ko moom ndax jullit laa comme yéen jullit noonu lay doxale bi ci des nag mooy Alaaji Abdul Aziz hmm. murit nangul na ko tiijaan nangul na ko xaadir nangul na ko laayeen nangul na ko ndax maam buukunta bi dem alaaji maam bu mii toog maam bu kunta caatam alaaji Abdou Aziz la ko tuddee sëñ Sidi Maxtaar bii xam na li may wax ndax man dama leen xam bu baax a baax a baax alaaji Abdou Aziz sëriñ Mbay Abdou nettali na ko ba tàyyi ñu bari dégg bési ajjuma xoolal lu toll ni ajjuma taalibi tiijaan am ko alaaji Abdou Aziz di xalif général di Tidiane toog ci biir këram billaahi wal kitaabi ka ko waxoon xam naa ko nii ma xamee Sidi Maxtaar Kunta te bi mu gaañoo ak léegi yàggul matagul juróomi at ki defoon lii may nettali bi mu gaañoo ak léegi matagul cinq ans mhm. waaye noon na lool mujj dundam xam nga nu mu def fekk ajjuma alaaji Abdul Aziz a ngi toog ci kër Seydi Hadj lu bon loo xalaat yekk na ko góor gi ci lu ñaaw góor ga njaay bëgg a jóg alaaji Abdu ne ko yow ceddoo nga rek mbeqit nga loo fóot fóot mu xëy mbeqit ma yooyu ñuy yeewee fas santuma la dara toogal ndax al bu rëy sama am ceddoo nga dara ci ceddo jee yëngu rek sëñ Bay Abdu lu ñuy wax sa papa te mënoo ca dara mu ngi ñuut ñuuti sëñ Abdu alaaji Abdu Aziz téye ci loxoom ne ko Babacar loo fi def te santuma la ko ma génnee la ci sama njureel te duma ci yem damay takk rajo Tiwaawan ne Babacar juratuma ko ñu bàyyi waa ji xam naa ko de waaye suturaa tax am nay doom am nay sët ñu bàyyi waa ji rek muy saaga rek ku mel ne laa jab du nga di ko saaga lu bon lu ne mu yekk ko góor gi ne pat mel ne liir liir ba waa ji ne wëriñ sànni loxoom ne may wax ñu naan xalifa doo tus ñu toog 15 minutes kenn waxul mu mel ni dëj am alaa du jékki-jékki ne waajal leen jumaa ji ñii jaar fii ñii jaar fii ñii jaar fële mu ne ana papatal ndekete papatal ñëw na mu ne ko demal ci magasin bi ceeb dugub diwlin mbasin mu def ko ci 4x4 bi ba mu fees ñu julli jumaa ba noppi mu ne Babacar kaay leen gunge ma sëñ Baye Abdou te boobu góor gi bët yi ne nañ neexul moo naan jaaral fii chauffeur bi jaaral fii jaaral fii jaaral fii ba gaare bunti kër waa ji ko doon saaga biñ gaaree bi góor gi gaaree Alaaji du wàcc ñu téye ko mu ne asalaamaaleykum waa ji mel ni poto lamp bi newul waaleykum salaam fay ko sax góor gi ne ko moo diw boo amee gan kañ bu la nuyoo nga fay ko mu ne ko bismillah yegg si leen góor gi yegg si toog ci yar bi ne ko diw mu ne ah mu ne ko àllaaxira di dafa sori te yàggaguñ fa man Abdou de xaw ma lu ma la def ba nga ñëw joxalanteeg man kàddu yi nga joxalanteeg man te gannaaw dafa sori te yàggaguñ fa te ma fay la fii mooy gën a yomb ma fay la allaaxira dama bëgg nga wax ma lu ma la def ma fay la mu ne pat waxu ko dara góor gi ne ko gannaaw mënoo ma ko wax indi naa lu ma la tuubalee daldi ne Babacar sëñ Mbay Abdu lay wax bi mu ne ko la labbay mu ne ko yàlla ak ma la saraxee ci sama deret ji amatuma kàttan su ma ko amoon man Abdu maa koy yenu saako par saako tegal ko ko fii ci ruumam bi waaye mënuma ko te yàlla ak ma la saraxee ci sama deret bu la kenn jàppale demal ca oto ba lu fa nekk nga wàcceel ko sa bopp indil ma ko fii sëñ mbay ne futteet garaam boobu dem ca saako ba dem ca oto ba di yenn par benn di indi di yenn par benn di indi ba yegg si toog ne ko papa jeex na mu ne ko jeex na mu ne ko ah mu ne ko jërëjëf dal di ne diw baal maa xam nag yow itam ku la mën a baalu nga baalu ko rek mu yuuxu nag bët bu rusul tojkat mu yuuxu yuuxu bu kowe ne ko papa kenn defoo ma dara dañ ma monter pour ma dal ci sa kaw ñu ne naa ñëw dal ci sa kaw diw mu ne ko bul lim bul lim bul kenn monter la yàllaa ko dogal mu ne ko dafa am laaye ju ma daan jàng muy direeku ci sama kaw te application bi yaa ma ko may tey dama daan jàng idfa bi lati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyun xamim wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu xadin adim dama daan jàng rek yàlla di wax ne ki dëkk di la def lu ñaaw dëkkal di ko defal lu rafet mu ne soo ci saxe moom mi lay def lu ñaaw dana mujj nekk sa xarit te loolu kenn mëntu mënu koo am ku dut ki ki bëgg a bokk ci borom cër yu mag ya mu ne ko déedéet dimbale ma bul dem bul dem bul dem may ma rek waxtu bi la mu ne ko te man ci borom cër yooyu laa bëgg a yegg mu ne ko man ci borom waaw bu mu ne ko man ci borom cër yooyu laa bëgg a yegg gannaaw yaa ma sarax yu ma fa yeggee nag maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm lii nag yow laa ko tuubale keroog laa xam ne ndekete tuub ak bàllu du benn Alaaji du nee na boo baloo ba noppi da ngay tuub tuub mooy nga seral xol yi ki la tooñ ngeen baal ma tey bu ma toojoon ajaaru gi wala borom këram bi jibi ñëw ne ko baal ma àq mën na ne ma baal naa la waaye su ma yëkkatee trois cent mille ne ko ala ajaaru gi maa la tuubalee lii di nga dégg mu ne <laughs> moom kañ mosoo maa def dara seytaane fi doxoon rek la ca dënd ba yëpp day génn loolooy tuub boo baaloo ba noppi dangay tuub moo tax mag ñi bu ñu daan tuub dañuy indaale guro guro léegi kenn soxlaatu ko gàddul cinquante mille ñëw tuub ne ko maa la maa la tuubalee lii di nga gis mu reeree gu sew ne la baal naa la xaq dafa ma dara cinquante mille yaa tax yal nañu yàlla defal sutura kon nag alaaji Malick kàddu gàngoor ngeen baal ma xaq bu baax a baax a baax ci guddee bi ak guddal bi waaye ngeen xam ne du dara lu dul rek bëgg ñun ñëpp ñu jëriñu ndax li may gën di daw di ko moytu mooy ay nit organiser seen yëf ay weer waaj ko nga ñëw wax 30 minutes dem tegoo ko fenn je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord d'accorduma ay nit waaj seen mbir atu yàlla nga ñëw benn 30 minutes cof la nga war a cof dem sa yoon man ànduma ci d'accordu ma ci gis nga làmb ji passé jox nañ ko àqam ba mat sëkk walla déet football mondial bii passé doonuñ ca dara waaye jox nañ ko àqam ba mat sëkk poste téléviseur yëpp ñëpp ay seetaan te booy seetaan da ngay mel ni malaaka nga gis doo xef doo raf bu dee yàlla nag ñu cofal ko ko te yaakaaruñ ku dut yàlla ëllëg yow mal moo tax man j'ai fait exprès pour maintenir nit ñi xool ndax yàlla ñor na leen. conférence bu may def xam nga minimum lu may wax cinq heures de temps. billahi wal kitaabi tey Sidi Kunta mi tax moo tax moom bariwul sax lu ma koy yóbbaale parce que màggat la màggat la li ma àttan àttanu ko màggat la loolu rek la waaye bu dee man parce que du question démonstration wala wane xam-xam non. nit ñi dañ leen war a xamal li xew sëriñ Cheikh Tidiane si nee na bokk ci coow li xam li xew a ko gën mën a waaxu xam yoon a ko gën bari pexe saf yàllaa ko gën dégg ngeen wax bi nee na mën a waaxu xam yoon a ko gën mu ne bari pexe saf yàllaa ko gën bokk ci coow li xam li xew a ko gën ñiy chaise assemblée nationale ak ñiy chaise conseil des ministres ñoom xam nañ ni dossier état di doxee waaye ñi xamul dara ñooy ñekk ci tuuti naan c'est pas vrai waaye ña xam li xew duñ wax mukk kon nag yal nañu yàlla defal sutura lii rek la moo tax mu yàgg waaye dama xam ne tey la samedi suba la dimanche kenn defewul dara boo demee looy defi jaaxaan ci sa lal di seetaan sa télévision lekk sa ceeb wala sa cere wala sa michu wala sa ganaar loolu du loolu du wees loo xam ne benn yoon la xëy na ci at mi gen koy def nañ ko dama koy dama bëggoon rek jox ko àqam te wallaahi lu bari tëb naa ko lu baree baree baree bari tëb naa ko ah déedéet araayta bi kañ beneen yoon waaye du tey su ko defee kon maa ngi leen di balu xaq ajaa yépp nag laa wax waaw yéen ñëpp nag ajaa karoog ñépp rek ba ci woykat yi ga eh, rawdu yow ñoo bokk mbir maag yow dégg nga kaay sëñ bi mbay kaay alaaji Malick balaa ma koy jox kañ dafa am système bu ma koy joxee mhm. lii joxal ma ko raw waaw ah, bu ci kenn mos dara nag kaay kaay yow joxoon naa la waaye dafa am ñooy sédd yaakaar naa booy dem waaw mu ngoog kon dolli ci boobu bii yow yaa ko moom lii joxal ma ko raw ta waaw noonu rek loxoy kajoor day weesaloo kon maa ngi ñaan nag ñëpp ñu may ma ñu déglu alxaaji Malick su paree ñu yal yàlla fay la euh, fi conférence bi neexee nag lay tase affaire baa ngi soog a jàpp Chérif dafa nekkoon ci di taal taal bi mu ngi doon uppe côté bu ne pour jéem a capter bi mu demee ba tee faculté d'écoute yëpp la bëgg a tàggoog ñun bi mu téewee ñëpp la tàggoo te yenoon bee wax maamam xayrul xawaatimu xawaatimuha nee na li gën ci mbir yi mooy bu ñuy tëj moo tax ñi toog ba mu cate nii nañu xaar ñu ñaan damay laaj damay laaj nu quartier bi tudd cité sahaba wala saba saba ah d'accord d'accord première dëkkandoo mooy kan fii ñu toll ci jamono bii man bariwuma xaalis nag mais ku ko xam ma jox la ñaari junni première dëkkandoo déedéet déedéet ngeen baal ma moom moo doon waxtaan tam maa ngi doon déglu boo gisee bu laajee duma tontu mooy dama ko jege damay bañ tontu yéen ñi war a tontu tontuwu leen moo tax bu ne fu fu ma yemoon rek ma noppi. xaw la woykat yi rakkaaju na ñaari junni yi la fi mu baal leen ma rek dafa am dama def ixtibaas li arab tuddee ixtibaas dama tibb ci li mu wax bëgg a synthèse bi. mais professeur dix minutes dimbali ma dix minutes rek ma tëj ci conférence bi suñu mbokk mi wax ñaari minutes ñu soog a jox shérif Sidi Maxtaar Kunta mu ñaan xam naa dinaa joxaat shérif ndax dafa am loo ko bëgg laaj ci xaritam ñii ñaar gis nga kii dafa raar man bi muy delloo xaalis bi maa ngi miir buy def yi sama àdduna day tukki ndax yéen bi may xaar daara ja balaa ma koo meree rek nag fu ma koy meree rek bu mu naan bu kenn ñëw ma ne sërif dina ma rey des fi nag mais sëñ bi yii fu mu xewati dama ne lii ngeen lii fu mu xewati man bu doon man jóg naa bu yàgg balaag maaram ay saag faajo mel ni bëyu ndëpp cenc lay lijjanti mu nin gars looloo xew borom bone kaare ba du ko jengal du ko sengal xaalis xoolal dafa xew lii amul lii amul ci senegal kii dafa raar gis nga man aw ma liberté de ci dem ànd ak ku ne mais billaahi bu ma doon bëgg a yéeg avion mu ne ma bul dem tey wallahi ma bàyyi ko bu ma doon bu ma daggoon bii xam nga ko annulé sa vol moom da ngay perte mbaa nga fayaat su ma daggoon billet bëgg tukki mu ne ma bul dem billaahi ma bab gis nga nitu valeur yi kuy taxaw fi xoolal léeg-léeg ma dee Sidi Maxtaar ne ko waaw Chérif li mu naan sax xarit nga yow euh, loolu noo ko gisee mu ne ma Chérif francisé moo amul ci traitoire réew mi ne ma am nañu baax de ñu ko gën a jege sama jëmm ji mais day jàngale sanga ngi nii toog gis nga ñaar ñii moom moo ma moo teg ci loxol shérif mii te keroog ba may dem kër shérif woowu ko sama benn rakk laa woo man Mansour Thiam ne ko tey damay dem ci shérif mais moom moo ma teg ci loxol shérif te lu mat ñeenti at heure bu ñu toogee mu ne ma gàmmu shérif de yow lay àndal shérif dama bëgg nga jàppante ak shérif te Sidi Maxtaar Kunta région ba ñu dëkk Thiès bu ñu ne ma woon indil koo koo jàpp ni amul ayib billahi wallahi tallahi duma dem feneen ci moom lay ñëw jël ko mooma ma discoural ci kii daf ma naan shérif bu ma sañoon mu ne mu ne ma kenn du acharné wu sax jëm ci kawam ma ne ko tax mu ne ma dañoo yàgg dama xam ni lu mu néew néew daje naag lu mu néew néew fukki mag yoo xam ne àjjana la ñu jëm te gërëm nañ ko laataa ñuy dee moom mi moo ma ko wax am sa nawle di wax ci lu tol noon ci moom xamuloon danaa ko fa shérif tàggutul dara ci shérif teraanga maamam doy na ko sëkk mais kii dafa raar conférencier bi amul man su ma toogoon ci taabal ji ñëw ngeen bu yàgg ndax ruq yi may jaar dafa am xissa yu triste yoo xam boo koy dóor rek gars yi di ñëw waa dafa am ñun jàng nañ loolu dafa am xissa yoo xam koo dégg mu koy waxtaane dóorul mais man laay yi dama koo fàtte yi muy waxtaane xamatuma ko sax ci téere bi sama yeneen affaire laa yor kon ni gorkatu pël Fuuta bi di def matt yi gor rek te gis nga wax na dëgg de billaahi xam xam maanaam bokk ci coow li xam li ko waral xam li xew a ko gën teel leen ma nag première dëkkandoo sëriñ kër Si xam li xew dafa am solo Cheikh xalifa Khalifa sëriñ Babacar Si du xam ngeen ko doomi Cheikh Al Hadji Malick ji ki jubóog boroomam dafa woolu benn mag damay bañ a tudd tur ne ko damay ñëw ndakaaru bi sàngam waaye sirran nag ndekete góor gi xamul luy sirran ne ko nag damay ñëw waaye ñëw bi sirran waaye nang ma xaar ca gaar ba ca laay wàcc ndax saxaaru fajar laay jël góor gi ñëw ndakaar dem ci mag ñi ku mu gis ak ne sëñ Babacar day ñëw ndakaar waaye sirran nag di wër ndakaaru ba ndakaaru daj kap sëñ Babacar si déparé saxaaru Tiwaawoon fajar bi muy agsi ndakaaru onze seen gaar bi fees del mu ne ñi mu àndaloon wër leen ma góor gi diw ñu wër ko mu xaabar xaabar rek daraa nag ñëw sëñ kër ne ko waaw ci nopp bi lu ma la waxoon xanaa ñëw bi du sirran mu ne ko billaahi si ku ma ko yëgal dama ne la sirran moom li ko rey baatu sirran xamul li xew sëñ Babacar ne ko sirran mooy secret lu nëbbu mu ne ko si la rey damaa xamul li xew gis nga bokk ci coow li xam li xew a ko gën maa ngi laaj première dëkkandoo moo waxtaan ci laa tibb benn ngoog ñaareel bi ci des première dëkkandoo da ngeen ma ko wax mbaa ma wax ko moom nag bokk ci imaam Souleymane bokk ci surafa yi bokkuñu ci xaqiqa ma tere ma boole leen ci benn bi mooy jàpp naa ne yàlla la déedéet du yàlla ah du conscience déedéet du sa bopp du sa jabar du sa jabar du sa gel Rahman dañ ñu rey waay ah, du sa ruu dama ne dëkkandoo jamono bii dañu am dëkkandoo du cenc déedéet waaw jeex na gis nga dama ne du sëy du sëy cër waaw kay ma ñëw ñaareel bi ci des est-ce que catholique yi ñibbi nañ ñu ngi fi est-ce que xam ngeen diine jii nag naa leen wax lenn bu desee monnaie jox leen ko chrétien yi waaw bu desee monnaie maanaam bu l'islam defee dara bu amee chrétien ñi gëm yonti yàlla Isa muy Jésus Christ lañ ko war a jox ñooy borom seen maam Cheikh Al Hadj Malick bàyyu Cheikh Al mii ma doon tudd ba ca septième gaar nee na bi juddoo doon doom ju ndaw feragul amagul doole amagul kattan ay mbokki sayiduna Muhammad dañoo xatal yonent bi Makka perturbé leen yonent bi xool-xool istixaar yàlla ne ko yóbbu leen Éthiopie yonent bi ne ko Éthiopie ay catholique a fa ne buur ba sax catholique la Najaasi la tudd yàlla ne ko foofu nga mën a rawale diine ji su dul moom diine ji du fer du màgg Cheikh Al Hadj ne ba ñuy dem xam naa ñaata nit la yonent bi yebal xam naa ñaata góor lañu xam naa ñaata jigéen xam naa luñu war xam naa yoon wuñu jaar xam naa lañu fa fekk tawajjahu bu leen woy de bu leen woy bu leen woy li najaashil bahra xad rakibu ba an waya rajulan fii arbai runumi ci woy wi waaye maa arbai runumi ci pirimi fii du taxaw placement eh buur bi ñu tuddee najaas yi katolik la jullit yi ñëw dajeeg ñoom ne ko dañoo làq si suñu diine ci gàttal rek def ne leen antum suyumun wa tayru sarri lam yusami toog leen da mucc dana protéger diine ji ba mu dëgër ngeen soog a delluwaat ak moom màkk moo tax Najaasi tuub na dugg ci lislaam dund ci dee ci gisul sayyiduna Muhammad ñu teg ko xabasa di ko jullee yonent bi taxaw Madina ne saxaaba yi def leen sàppe ñu ne ko koy jullee mu ne Najaasi dama gëm sopp ma dooleel ma wëlbatikuwaat moo aaroon lislaam bi lislaam néewee doole tey dee na nag yonent bi na jibril tàgge na ma ko saxaaba yi def sàppe mu taxaw kabbar ñaanal ko yeggal ne leen malaaka yaa ko yenu ma ngay jëli loos moom aljanna ñu sëlmal moo tax salaatul xayb la waaye nag fuqaha yi dañ ci wuute imaamu malik nee na kenn du ko def néew boo tiimul mënoo koo jullee nee na xusuusiya la xaasiya la ci yonent bi kon première dëkkandoo ah koo bokkalul de shérif tudd na ki nga bokkalul diine am ngeen dëkk mais shérif tudd na ko bu dee yéen ngi doon suivre tudd na ko ñaareel bi ci des balaa maa wax première dëkkandoo ma dolli ci beneen ki yàlla njëkk a dimbali ci kaw suuf kan la ah? ki yàlla njëkk a teral kan la kan ah doomu waa fu mu terale doomu aadama fan fan la ko terale kon nag ma dem xam ngeen kuy première dëkkandoo à l'heure actuelle du jëkkër du jabar du yaay du ndey du baay ñun ñëpp tey ku ne am nga dëkkandoo bu bees <laughs> nañu waxante dëgg te yàlla taxawaay kii mooy sunu xarit ah, mi ngi bëgg a tas sëy yi dafa ñëw ci kër gi te yëguñu ko dafa gane te fàtte nañ ko seet leen da dugg ci kër fekk jëkkër wéeru nële jabar weeru nële taw ba wéeru nële caat ma weeru nële ku ne di wax ak dëkkandoom ki nga codifié mooy sa dëkkandoo universitaires yi xam nañ loolu. texte bi ñëw na ba pare te yonent bi wax nañu kii dëkkandoo léegi ndax ñun dañuy jël sa wax bàyyi bu yonent. déedéet da ngay am mafhumul jadid. Euh, oh lii nag mooy blocage réew mi tamit nag dama ne lii mooy blocage bi nag xadis bi nga jàng maag yow a ko jàngandoo al mafhumul jadid laa lay wax. kii njëkk dama ne sëñ bi kii njëkk ki ki nga njëkk ki ngay ki ngay ëpp li ngay dëkkal ki nga ëpp li ngay waxal ki nga ëpp ki nga nekkal mooy sa li ngay jëfandikoo à l'heure actuelle ku am dëkkandoo bu gën a jege portable na ma ko wax dama ne ndax d'accord ngeen dëgg la ndonga oh ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan oh, ay waay waay Chérif waaw sëñ bi nag xam nga xam nga dafa am lu may jàngale dafa am lu may jàngale oh la la ndeysaan xam nga nag lii nga def da nga waroon bàyyi ba ñu wet maanaam dañuy jàngale ñun ci pénc la ñu toog xam nga wasaa ilul idaax dafa am jumtuwaay yu ñuy jàngalee waa sama rayu boobu laa bëgg ñu yóbbaale ko ban mooy bu yonent bi mooy ban man mooy ban ban la déedéet wax ma ko rek dimbali ma waaw wax ma par première dëkkandoo wax ma ko waaw wax ma ko rek dimbali ma rek ah d'accord ah sëriñ bi nga ni ndeysaan mais d'accord nga ci li ma wax wala nee na on est ah parce que mafhumu jadid dafa am waaraate wu bees amatul mais dégg gu bees dafa war a am ku mënul la wax ak sa jamono ku nekkul au diapason du temps mënoo interpréter alquranul karim mënoo firi hadisu rasulullahi man maa la wax loolu lu nit di laal rek mbaa nga koy yër yër nañu ko dama ne ki nit ñi gën a codifier fii ñu tol portable la et eh, sa dëkkandoo la mënatoo ko bañ yonent bi tudd ko woon imaam a ngi nii sànq bi ñuy julli timis waaw wax na ci kaw ne waaye uh-huh. balaa muy li xamal nañ ko ba pare uh-huh. mu ne jubal leen sàppe yi uh-huh. ci julli ki la bokk te ngeen fay portable yi billaahi boobu maa ngi naan ci sama xol allahu akbar balaa ñoo pare portable dina fi sonne balaa ñoo së balaa deuxième rakk la portable sëlmal te imaam nee na fay leen portable yi oh. tey rek tey maa ngi woo sama benn njaboot Omar Diop mu ngi nii du ma bàyyi ma fen bi ma ko nee demal nga couvrir yi euh, conférence bi na nga jël numéro téléphone bi télévision bi sama télévision la Chérif Dabakh TV bi ma koy jox consigne ne ko demal nga couvrir ko te bu ko def en direct dama woote ñaari yoon ci portable am muy sone xam naa heure bi boobu il était quatorze heures euh, dix xam naa ne jàkka lay jullee wóor na ma mu nga jàkka ja loolu bu feebarut xam naa ne jàkka ja lay jullee mu sone ma coupé ne xëy na mu nga jàkka ja ba vingt ma woote doomam de décroché bu jigéen ne ma sama papa dafa dem jàkka ja ma ne ko waaw jàkka ji kañ passé na waaye nag bu ñëwee nga ne ko mu rappelé ma ma toog ba 30 ma rappelé ko ma ne ko Omar wax naa leen ba tey donte yóbbuwale woo portable bi booy dem ca jàkka ja fay ko mënuñoo muñal yàlla bu ñuy jaamu yàlla fay suñuy appareil mënuñu ko éteint lañ wax éteint fayal jàkka joo fi dugg imaam yëpp dee nañ ñu ngi bind ci kaw éteint fayal bul taal bànd bu rouge waaye kenn mënta julli ci jàkka bi seulement te déggoo portable bu sone te portable bu sonné désorienté na ñëpp waa jàkk ji yëpp de man tey xaw ma lu ma julli ndax sone sonnerie bu xur la yore sax boobu xaw ma chinois la xaw ma japone waa léegi li ma bëggoon a leeral dafa am lu ma bëggoon a leeral rek Chérif dugg na ci mooy dañu am dëkkandoo boo xam dañu codifié ak moom te ngi perturbé loolu laa doon bëgg a wax mais bu leen ko jàppee ab jàmbur dëkkandoo la yonent bi tuddul portable mais ci dëkkandoo yi ñu amee ci la bokk ah waaye suñu bopp la bopp bokk waay kon lima wax jub na allo sa xool mais kaamil bi ci boppam maanaam nit ñi téléphone bi lim lay occupé ak lim lay jëlal ci temps soo xoolee par rapport ak yow sa sa sa rapport ak kaamilu alquran ak sa ndey ak sa famille dafal dafal comparaison boobu voilà waaw loolu jar na bàyyi xel loolu waaw délégué de quartier nee na naa continuer maanaam du du lu ñu jóg nii rek sànni ko wax li shérif di wax balaa ngay addu da ngay def méditation ci loolu def ci tafakkur xalaat ci mais dama ne yonent bi su ñëwoon tey bu connecté wul xamul li ci réseaux sociaux du mën a nekk xaatimi nabiina wa imaamil mursalin am déet il faut que day nekk au diapason du temps soog a mën a diriger nit ñi dama ne portable tey dëkkandoo la boo xam ni mi ngi perturber mbaa muy saboter mbaa muy yóbbu ñu foo xam ni tey amuñu ndey ju ñu fa yóbbu amuñu noon bu ñu fa yóbbu amuñu xarit bu ñu fa yóbbu amuñu sëriñ bu ñu fa yóbbu ñii dérapeloo na leen ñii tegaat na leen ci siraatal mustaqim ñaareel bi ci des xam nga maa ngi firi alxuraan ci télévision bi ndeysaan sànq bi ma génnee julli timis am na ñu ma téye naan ma ñu ngi seetaan mais gis nga soo seetloo tafsir bi waxuma bayaan waxuma usul waxuma fiq parce que suñ cheikh dañ ne ko lu tax waxtaanoo ci fiq bindoo ci mu ne maa fi kutubil fiq illa al xusumaat téere fiq dafa bëri werante te kilifa gu ne gu ni man wax ba yeggal xale bu ndaw weddi la boo bëggee rek naam ci pénc mi sëñ cheikh ne kon exclure naa fiq duma ci wax maa ngi ci littéraire yi maa ngi ci poète yi di tagg sayduna muhammad di tagg sama maam cheikh alhaaji malik di woy cheikhuna tidiane sama sëriñ ñu ne ko tax mu ne damay bañ xale bu ma weddi te ku wax ci droit rek muy fiq nit weddi la parce que dafa bëri polémique mais am na koo xam ni boo ko xoolee xam ni làmbatootul mën nam nag mu jiitu la mën naam mu jiitu la ci mafuum yi gën la ko xam yéen a jàngandoo téere yi waaye bu ngeen dawee ci penc mi rek mu bàyyi la fa te wax naa ni waaraate yombul balaa may yeggale ñaareel bi xam nga naa koy wax ci télé bi bind ci tableau les enfants dansent wala les élèves dance ñu naan la monsieur luy danse nga naan danse mooy da ngay jàpp fii téye fii def nii loolu dañuy xam mënoo jàngale luy danse da nga naan leen tàccu leen doom ñu taccu nga tëb riic sa ndigg ne saayi bu ñu yuuxoo nga ne leen danse ngoo mais jàngale yombul de ñi jàng ñëpp dañoo war a noppi Cheikh Al Hadj Umar a ko wax nee na ñi jàng ñëpp nañu noppi ñu ne ko ñan a war a wax mu ne ko amul sagesse noppil actuellement sagesse ay waaraate looy wax nit ñi xam nañ ko boo amul xikma mënoo def daawa te waxu ko rek yem ci dee daf ko bind daf ne man lam yajlis ala kursiyi lxikmati fala yanbagi lahu an yamura bilmaarufi aw yanha an il munkar ñaarel bi ci des ma romb ko ñaareel bi ci des mooy teraanga bi yàlla njëkk a defal nit na Tidiane moo ko définir moo ko wax bi muy sant yàlla te xam nga yaaman azharal jamil cheikh indiwu ko da ko fekk ci dogi tarixa bi cheikh bi ne ko maintenir ko ndax sa xaas yaa ngi ci biir mais baat bi mu ci wax te mu gën a garaaw dafa ne yaa mubtadi an bi niamati xabla istihaqqiha ñu ne ko waaw loo ci jublu mu ne teraanga bi yàlla njëkk a defal nit min ko ko defale keroog bi mu sexee weenu ndeyam defalu la ko ci raam defalu la ko ci dox defalu la ko ci sax bëñ defalu la ko ci wax teraanga bi yàlla njëkk a defal nit Serigne Cheikh Tidiane si sëriñ Cheikh bu mag laa wax Chérif nee na yàlla ko defale nit ci keroog bi mu ne cas weenu ndeyam xoolal midi nga judd midi midi deux midi trois toqantal bi ñëw midi cinq sa yaay def nii weenam tëgal ko jox la nga xëcc tuuti rek ak sa tuñ yu nooy yi amoo doole amoo kàttan bi nga nee cas meew génn yàbb bënn wen wi ku la ëpp doole maccoon na ko ay weer ah loolu loolu loolu na bu wóol dama ne am na ku la gënoon a doon ponkal daan ci fanaan ba bët set mu dem noddi allahu akbar jàkka ja meew génnul a ah, waaye Chérif gars yi dañ lay wax loo waay ah ñun <laughs> yow benn waay wax na ma ko dafay waxtaan mu naan ma eh, yow Malick Diop doo dem ma ne ko moom man ma dem ba del si bay delluwaat ànd ak Chérif nga naan ma doo dem mu ne ma yow doo dem yu bees rek ngay indi ma ne ko man dem naa ba ñëw bay delluwaat sérif mii moo ma yóbbaale ma ne ko yow toogal foofu rek mais nañ waxante dëgg bi ko doom maccee war nañoo xam ni doole génnewu ko am na borom sikkim bu ko doon seex përëx përëx përëx ba fajar dara génnul affaire bi du doole kenn du suñ borom e eh, na de mais naa ngi ci biir de dama ne ah d'accord nga waay ku d'accord na tàccu waay bu ngeen d'accordee tàccu leen <laughs> waay mais loolay dëgg seetal suñ borom moo tax yàlla ku ko fi romb dem ca jàkka ji di ko wëri da lay riir newu fa billaahi wallaahi taala ku fi romb yàlla fii romb ko ca kër ga romb ko ca chantier ba romb ko ci biir saxaar gi romb ko ca aéroport ba romb ko ca ministère ba da ngay wëri yàlla ca jàkka ja mu njuuy la eh shérif ne naa delluwaat wa fii am ay waay sëñ bi bëgguma woon lii de ah waay jéggal ma de ah kon yow yaa ngi ba léegi